al bu si lenn la xaj na leen ñoo màggal si Abdoulaye bu Pikine Ouest la famille est là Abdoulaye Diène bu Pikine Ouest Babacar Ndiaye bu Pikine Momadou bu dëkk bi Mati Sarnia famille est là Yaya Sagna chambre 12 Modou Sané Mohamed Diba Mohamed Gueye Ousmane Diédhiou Mamour Touré Omar Fall chambre waa Rebeuss waa Camp Pénal waa Cap Manuel prison yi ci région yi toute la famille est là ñu woo sama sëriñ Cheikh Omar Diagne bibis sama idole bu bees bi yow tu m'as impressionné quatre jours yi ñu bokk violon deux jours yi ñu bokk ma impressionné voilà une fille qui vient me dire Daouda il paraît que institution yi pour ñu placer ma sous mandat de dépôt ministère la jógee ma ne ah maintien rek quelques minutes après il revient me dire Daouda jeexal nañ ma avec le sourire ma ne non ma gis na quoi parce que bu njëkkaan boo waxee kaso nit ñi dañuy kii mais kii da nga naan kaso gars yi dañ bu ñu gën a am famille yi mu yaakaaroon dina leen brisé pour ñuy tey a am engagement waaye tàccu leen wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ah professeur. jërëjëf professeur. jërëjëf professeur jërëjëf kontaan nañ kontaan nañ merci jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu yéen ñëpp di leen siyaar di am mbégte ñu taxaw seetaan di manifestation yi ngi def pour ñun ñu koy xool xam ne xeex bu ñuy xeex bu naxul saay yéen la ñu war a wax jërëjëf ndax ñun ay weer ñu ngi tëddoon di noppalu di nelaw ak di noos yéen ngeen ci terrain bi xeex bañ ñoo fàtte waaye nag bu ñu taxawee fii ba tey ñu ne sommes pas libres suñu liberté elle encore euh, à moitié ndax suñu ay mbokk yu bëri yu ci biir te tant que ñëpp génnuñu ñun mënu concevrons ma am na kenn ki nga xam ne bëggoon naa tey wax ci moom ci jotaay bi muy Bassirou Diop. le candidat du peuple. moom la ma leen di jottali ay nuyoo ak ay ñaanam nit ku digne ku intègre ku rigoureux ku am xam-xam yàlla bu mu rëcc waa Sénégal yàlla bu mu rëcc waa réew mi may fàttali jotaay bii nag ñu ngi koy teg ci Cap ñu ngi ko tere woote depuis téléphonique teguñu ci lu may pour bañ mu woote la mission ak ñi xam ne te def loolu mooy direct wala dénoncer ndax nit la bi xam ne il a des versions ak des versions jël na décision bi xam ne administration sant ko gis na ni Diomaye ngi woote candidats ak ay anciens candidats ñu ngi ñëw di ko seet si di ko féetali seen cofeel di rejoindre sa coalition ñu corser ses visites corser ses appels et lii c'est injuste injustice bi nga xam ne on tient à dénoncer ici du yoon di leen jaajëfal nag di leen nuyu leen wax ni combat bi waxuma il continue de commencé gul sax ndax ki ñu ko séqal muy waajoojee nekk foofee di nga waajoojee ku dëgër bopp la am jom de du ay waxtaan nu fi jëlee ay na ko fi yet rek la xam xamul leneen na bare xeex moom liñ ko joxoon moomu ko dañ ko ko dénk su liggéey ko liggéey loolu nañu ko teg ci moom delloo liñ ko dénkoon man ragal naa ma wallahi war na jéggalu waa Sénégal tooñ na père de famille tooñ na ndaw tooñ na kilifa diine yi na askan wi man Macky fan lay mujjee lay laajte fan lay mujjee Rebeuss la war a dem Rebeuss la war a dem Tambacounda Rebeuss la war a am na bu ma way waaye yow ah waaw waaw bii la Sonko Sonko namm naa la aye yow Sonko namm naa la Sonko namm naa la Sonko Sonko Sonko namu naa la. nañ ko remix sonde dañ taw remix fan yi Sonko mooy Diomaye wala du loolu ah. remixé wuñ ko woon xam nga Sonko mooy Diomaye ah. waaw léegi nag bi moo mujj yaakaar naa bii waaw boobu la boobu la yaakaar naa original bi neex na remix bi tamit saf na sap. jërë ngeen jëf dañuy woo Birame Souley Diop président Birame Souley en attendant muy ñëw en attendant muy si. activiste universel tàccu leen Abdou Karim Gueye estani obéissant pour Abdou Karim Gueye le lion l'infatigable le grand patriote la war a raw wala dégguloo jooyu askan wi total pour yaa ko tàgg wax wax loo wax du dëgg ci presse nationale interview France Télé dëgg ayca ayca kii xar la war a bëy nit la war a nga war a am boobu léegi dégguloo jooy askan wi jàppale góor mooy loolu foog ñu jóg jigéen ñu dagg sa loolu parce yaay ni